Amin gonna cinta ini Sekali Asali Sedang ini seluruh Ada nabi Kwaminata Nama mintaja Mami segala Malalika Selamat Malalika Malalika Malalika Malalika Malalika

I I I am don't don't Linga, Linga, Linga, وهرث قلنا وهرث قلنا Euh, tey di journée bi nga xam ne moom la dédié la musique. en tant qu'acteur euh, musical musical plutôt. Mhm. Euh, quel est le message que vous lancez d'abord par rapport à cette. bon message de félicitations hein, d'encouragement à tous les artistes du Sénégal donc waa Dakar Musique ak Il yéen a ngi wasaare mbir mi yéen a ngi teew fi ñu bëgg ngeen teew parce que lu ñu musique musique musique bu ngeen ko jàllalewul du jàll.

ci euh, engagement ou artistes organisation artistes am structure bo xamné dans les dossiers de dans les tiroirs de DRH dafay am ben une structure juridique de la musique buy ëmb encadrer tous les musiciens du Sénégal. mais musique fa mu nekkoon ba tey mi ngi fa. ngi fa même si dee am ben vent buy souffle partout dans le monde de nouvelles musiques de nouvelles modes de musique de nouveaux manières de s'habiller de de s'engager de danser et autres ça tourne partout dans le monde, ça change partout. Mais la musique riche et originale, elle est toujours là. Amna ñu koy def amna ñu si sax diko def maintenant média bi amna ci ben wàll parce que nit lu mu def lu mu neex neex neex boko ko wul, kenn do xam fu mu nek. nit mën na def feulé lu mel lu kenn xamul boko jallalé, loloy jall. Tay mën nañu xam lan moo tax euh, musique am différence ak musique yi nga xamante ne nii fi doon am. Wa non aduna bi aduna bi évoluer. Les musique nous avons fait des morceaux une semaine deux semaines trois semaines un mois un an nous avons fait des morceau mais léegi en une fraction de seconde nous avons fait des clavier des ordinateurs, des am des musiques, kii wala télécharger benn musique Indochine indi ko wala nga ñëw ça veut dire que ci cinq minutes 10 minutes trente minutes mën nga ci indi benn morceau boo xam ne aussi dafay def boom dafay def zoom parce que affaire yi moo changé bu changé nag soit nga changé ànd ak moom ou bien nga garder sa originalité ou bien booy changé tamit nga dolli si sa originalité mais yëf yi ce n'est plus comme avant mais il faut aller dans le même sens mais tout en gardant originalement ce qu'on a comme valeur. Fête de la musique tombée à Covid-19 ben message ngay lancé envers la population yi nga xam instant bi Wow, nañu lâché wu waaw euh, dafa carrément pandémie ba fête de la musique dañ donc ren mais il paraît que recrudescence mu ngi donc il faut nit ci gën parce que ñun ñoo impacté ci Covid nañ ñaan yàlla mu yem fi nañu gën a sensibiliser nit ñi ñaax nit ñi ñu delluwaat ci masque yi delluwaat ci gel yi delluwaat ci sorante bi balaay mbir mi di delluwaat ci li mu nekkoon muy doon musiba pour ñun ñëpp pas pour la musique mais pour tout le Sénégal et pour le monde. merci pour tout. j'en prie.